soob ñu ci yoon bi nga xam ne mooy yoon yi Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu nga xam ne mooy jóg rek jëm ci yàlla doo ko booleeg dara coow yu bëri ñu ngi koy dégg fi mu ne nii ci taalibe yi waaye bàyyi li mu waxoon ne wa yajibuni samtu tawilu fa innahu dalilun ala al irfani wal xaalu muxbiru fala xayra bi taabiri fi kulli maxfalin qad intaqala al asraru min xaysu yujharu bàyyi daf ne naaw naw naa noppi gu yàgg noppi bu yàgg mu ne dafay tegtale xam yow li nga war a wax sa xaal mooy wane ndax yow loolu nga wala doo loolu taalibe bàyyi la kum neex rek nga wax waaye bàyyi am na ay critères yu joxe ne loolu mooy taalibe ba mooy taalibe am na ay critères yu mu joxe na loolu mooy aarif billaahi maa xam yàlla loolu yëpp jarta wax defal suluki ñi xam yàlla bu boobaa ñi xam ne yow ku xam yàlla man maa ngi fàttaliku Seydi Ali Cissé ba ma ñëwee ci moom pour laaj awraaj tarbiya waxtaan moo indi waxtaan rek dit bu yàgg ba sët ma ñëwee mu ne ma demal ba xam li ngay wax yaay bés mu ne ma tarbiya awsa yi bi mu may jox mu ne ma tarbiya awsa yi fi mu ne moo ma gënal tarbiya olof yi ndax olof yi ku nekk dañ ko ci dugal fu nekk dañ fa taxaw di wax wax ji du caaxaan dégg nga lan amru jiddun walay sahzal yëf yi dëgg la du caaxaan dégg nga ku bëgg dépasse xale bu ndaw man ngaa commencé ci jaay mouchoir ba nekk milliardaire te doo tappale doo naxee doo wax lu ci bokkut ku mënta ñàkk a tappale nga emale ko ci sa bopp waaye bàyyi bàyyi ak mbiram mbiram yi du caaxaan mbiram yi dëgg la dégg nga te lam waxoon man zaqaha yasiru sayral abadi yajnil maarif maarifa bi ma madadi lii ma indi ku ko mos da dox dox boo xam ne dootoo taxaw te da nga kot ci yi da ko dagg di ko xam waaye foo koy jëlee ci suma mëdët du ci leneen lépp luñ ko bëgg a wax ku ànd ak moom àndal ak moom ci dëggu ak sëtku ak mahabatu ak xidmatu tegu ci yoon wi la góor yàlla yi amoon da ko am boo toobee nag di wax lu la neex te tegoo ci yoon tamit dangay mel ni waaj a taxawoon rek romb dibiteri bi mar yàpp amul njëg mu jënd mburu ñëw ba ci boori dibiteri bi xam naa damay wax ne Touré la sant ngir respecté suma nijaay <coughs> bu xampee mburu mi rek bu xeeñ too ba yàpp bi xeeñ ko rek mu xàmp ne mu ngi lekk mburu ak yàpp ah borom di bi téere bi ne dafa soxot ndeke mu ngi koy xool bi waa ji pare mu ñëw ne ko fay ma mu ne ko lu ma lay fay mu ne ko sa mburu mi yëpp ma yàpp bi nga ko lekk waa ji ne ko nañ dem ci tëli bi ma fay la ñi dem ci tëli bi waa ji génnee xaalis dóor ci suuf mu ne keleng mu ne ko dégg nga mu ne ko waaw mu ne ko fay naa la mais bëri na kuy oote al mutashabbi'una bi ma lam yu'tu la ko yonent bi tuddee sallallahu alayhi wa sallam mu ngi koy waxaat dégg nga man zaqaha yasiru seyr al abadi yajnil maarifa bi bi sirri madad yi sirru madad boobu mooy joxe yëf yi la ko joxe woon démb moo koy joxe tey la ko baaxaloon démb moo koy baaxal tey kuy caaxaan caaxaanal te bàyyi yëfi bàyyi du caaxaan kuy caaxaan caaxaanal ku bëgg a wut dépasse tim dëgg dëgg gor su nekk war ngaa góorgóorlu ba am dépasse ndax mooy tax nga mën a gore sa kër mooy tax nga mën a jaar yoon taane ndax kii gisaguma ko waaye dégg naa nit mu ne ba ma ñëwee fekk bàyyi di fondement jumaa ji ma xam li ma waxoon dëgg la maa ngi bëgg a guddal bëgguma guddal sax dama man suuna ñàkk a yàbbi rek ay baat yoo xam ne mënuñ koo ñàkk a yàbbi waaye li fi suñu rak Cheikh Ahmed Boucar euh, wax doy na ci guddi gi gëstu na jàngale na guddal na yaatal na ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko tawfiq ak mbooleem ñi nga xam ne nii ñu ngi jaar ci lef yi nga xam ne moom la jaar te ñu xam xam jàng nañ gën góor góorlu di leeralal nit ñi ndax ñi war a ñi xam lu ñu war a wax buñ ko waxut ñii wax lu leen neex ñoo koy wax te bàyyi yëfam yi yàlla daf koo nangu ba ku ne bàyyi rek ñu ne yaa yóbbati di ñu ci yoon bu ko defee ñi ñu topp la bu yàggee nga foog na yow lay tomp wala nga foog ne sa muqaddam bi lañ topp nañu ragal yàlla ci jaam yàlla yi jaam boo xam ne dafa bëgg yàlla bëgg jëm ci yàlla boo ko mënee dimbalee dimbale ko boo ko manut bul ko dévier di ko yóbbu ci loo xam ne nii bokkut ak moom fi mu jëmoon yëf yi du du caaxaan yëf yi dëgg la يفي إيمان لا يفي القرآن لا يفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم يفي بق يالا بق يونس بلا يفي بق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفي بق شيخ أحمد التجاني لا من قبل تالي بهم يونا تموم نكو شيخ من منو ما جوك فجر فهم شيخ تجاني فكي وحنا كو غارانتين على أرجان منو كو كم منو جوك فجر تاني سمو كروز دي لون لي مقاوم يفي دوشاها يفي دوشاها باي من قبل نه نكو قو قم نه أم نكو شنداو waaye lépp lu ñu war a sàkku rek góor yàlla yim mu nekk ak yëpp ñim jamono ante ak yëpp yaru na ci seen kanam baaxee baaxee na leen ba bu amutoon sax ñoom liñ am dana ko am waaye liñ amoon yëpp fekk na mu am waaye lim am bu ci fekkee dara ci ñoom dana màggal loolu ku am xam-xam gisee nit fekk ci moom xam-xam da nga màggal xam-xam wala da nga ko xeeb ku am alquran fekk nit ci fekk alquran ci nit da nga màggal alquran bi nga fekk ci moom wala doo ko màggal ku nekk nit ku baax fekk nit muy doomi nit ku baax ndax da nga màggal mbaax ak doomi nit ku baax googu ci moom wala da nga ko def loolu yëpp moom mooy baax dafa yaroon koo xam ne da nga yaru ak jaamu yàlla yëpp yaru ba yaru ci sa ay njaboot ku wax ne taalibe bàyyi nga na nga yaru ndax bàyyi léppam yëpp lépp yëppam yëpp teggin la yëppam yëpp teggin la Muhammadul Nahwi mu ne dafa ànd ak bàyyi ñuy du ñuy ñëw ci benn kër te fekk bunt bi dafa gàtt lool bàyyi dafa war a sëgg te moom gis na ne bàyyi di sëgg sax loolu dafa di sëgg moom mu ne bàyyi ah faw nga sëgg de bàyyi ne ko waaw ah, man man man man ku yaru la man yaru na aw ma problème yi sëgg yaru na nit fekk na ko ci mbaaram mi ne ko yow la kan nit ñi ne ko kii dafa dof mu ne dofut daf maa xamul rek man Ibrahima Niass yow noo tudd kooku mooy sa sëriñ du affaire caaxaan comme addina bi yëpp a ngi lay déglu addina bi yëpp moom la ñuy seet addina bi yëpp moom la ñuy gëstu boo demee fii ba Hind boo demee fii ba Asie boo dem foofu ñëpp addina bi moom la ñuy seet ñi koy seet nag ba agsi ci yow nga wan leen leneen loolu jaa taalib baay bu nekk war na ko moytu weddiwuma kenn kuy ootee da ngaa bëgg baay ndax bëgg baay yomb na ndax ku ko gis bëgg ko ku ko dégg bëgg ko ku ci mos tuuti bëgg ko ku xam kenn ku ko xam boo ko di yee bëgg ko ku oote ne bëgg nga baay du ma la wét waaye nañ ko dëggal nañ ko dëggal ci jëf nañ ko dëggal ci méngale bëgg gi ak li nga xam ne moom la nekkoon nañ ko méngale ak li nga xam ne moom la nekkoon ku ko bëggoon a gis bu julli jotee rek da nga gis mu ne tël nga xam ne mu ngi nii dégg nga bu aj jotee da nga ko gis bu or jotee da nga ko gis bu jàngalee jotee da nga ko gis du benn secret boo xam ne du ñuy nëbbu la lu leer naññ la ñëpp gis ko kon ñu koy ootee nañ gën a góorgóorlu ci loolu ñu koy oote yëpp nag baax nañ loolu laa gëm man loolu laa gëm man gëm naa ne képp ku wax ne taaliba Baay nga rek baax nga parce que ñaara fi nekk damaa ma ne ko du ma sa morom ma ne ko gis nga ñun nag ku ànd ak rek dañoo jàpp ne baax nga wala bëgg bëgg ngaa baax te ñaar ñooñu ñëpp baax nañ yàlla nañu yàlla baaxal ñun ñëpp yàlla nañu yàlla def ñu ay taaliba ñun ñëpp dañu wax ne taale bàyyi lañ waaye nañ àgg ci àgg ci bàyyi mën a wax ne ñii samay taalibe lañ te moo ko waxoon dégg nga maa qultum annama muridiya wiaaun mumtaliun min asrar alxadarat alsalasa fa naam walakin ayna muridi minkum li ngeen wax ne sama taalibe mooy ku fees ak ci pee yooyu dëgg la waaye ana sama taalibe ci yéen ku nekk waxtu wu nekk danga war di laaj sa bopp ana ana nga yow ci wax jooju ana nga yow ci wax jooju ana sa njub fan la toll sa mbaax fan la toll sa ut xam-xam fan la toll ci yaru ci jaamu yàlla yi fan la toll ci jàpp ci tariqa bi fan la toll ci jàpp ci lislaam bi fan la toll ci mbëggeelu yonent bi fan la toll ci bëgg saxaabatu rasulillahi fan la toll ci bëgg bàyyi ak mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom di ko liggéeyal nga xam ne loo liggéey liggéey tey yow xamoo liggéey liggéey koo koy liggéeyal te ñoom liggéeyal nañ bàyyi ba mu gërëm leen nga xam ne ñoo ñooñu duñ sa morom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaabaam yi ñoo fi gën ñëpp am nañu ñëw ci gannaaw mujj ci saxaaba yi am xam-xam boo xam ne ñi leen jiitu sax amuñ ko woon te ñiy oote lii amuñ loolu waaye ñi leen am na sax ñu amoon loolu waaye waxtu wuñ dajaan ci buntu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi fekkee badar ñooy njëkk dugg ñi fekkee badar ñooy njëkk dugg ñu doon bàyyal bàyyi góor si bay xam yow nga ñëw ci bàyyi boo xam ne ba nga ci accès boo naan taalibe bàyyi laa boo naan man muqaddam laa ñu jënd la climatiseur jënd la nangam jënd la oto jënd la nangam nga bëgg nag soofal affaire boobu nga xam ne dëgg dëgg euh, du du caaxaan mbir mi du caaxaan dëgg la waaw te ku xam ku xam dëgg dëgg mbir yi nan la nekkee woon boo gisee ay xale yu ndaw bu koo foyee sa xol dafay jeex man lii ngaa bëgguma cee wax waaye lu tuuru rek di wax maa ngi nuyu suñ mag Cheikh Ibrahim xalifa euh, Cheikh Tidiane di nuyu mbokk yëpp ñi ma gisul di ñaan yàlla yàlla nañ yàlla nangul guddi gi ñu ngi ñaan yàlla eh, Cheikh eh, Hassan Deme yàlla eh, yokk ko leer zahir yokk ko leer goo xam ne nii dana bijji feeñ ci mbooleem njaboot gi feeñ ci jotaay bi feeñ ci ñun ñëpp ba képp ku jóge ci jotaay bi tey sa mbir yëpp dana baax ci zahir ak ci batin taalibe Baay yëpp tim yàlla baaxal seen mbir ñun ñëpp yi taalibe Baay yàlla nañu teg ci yoon yi Baay yàlla dolli ñi ci moom bëggeel goo xam ne dafay yokk fekk nokki gaa ngi yokk te buñ rax buñ rax buñ jaxase buñ yokk ba nga xam ne képp ku bëgg a gis Baay bu ñu gisee dana xam ne yoon wi mu ngi nii waaye oote Baay nit gis la dem ba ci kanam mu ne non bu fekkee li mooy affaire bi li moom baaxul te borom xel yi loolu la ñuy wax